asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi nuyu nañ leen comme niñ koy defee saa su nekk ci seen émission Zap Série tey nag ñu am gan boo xam ne kenn dootu ko présenté ci wàllum cinéma mais laataa loolu ma bàyyi la ñu découvrir ndoo ko Mamita nuyu naa la. fay naa la Khadija tu vas bien. ça va alhamdulilah je vais bien ma bàyyi la nga nuyoog mbokk internet yi. bon euh, nuyu naa ñëpp ku si nekk sa tur ak sa sant maa ngi leen di ziar bu baax a baax a baax. Mamita ñu gis na yow tey jii ñëpp xam la ci série boobu di Mbettel. est-ce que mën nga ma wax nan nga def ba intégrer série bi. en fait euh, man bien avant Mbettel, dama njëkk a def Ramadan de de Ngagne y a 4 ans parce que dañu soxla woon euh, kenn ku nekk doomu Ndeye Sine déjà ku niroog moom et tout donc après Ngagne woo ak euh, Badou ma ñëw def ko légui bi ñu Ramadan bi nak affaire bi jall bi ñuy def mbettel ñu defaat ma ma doom am encore ok c'est bien donc daal mën nañ ne kon Mamita Mbettel nekkul première série boo xam ne wala premier théâtre boo xam ne def na ko. non non non non Ramadan de Serigne Ngagne laa njëkkee et puis bien avant Ramadan de Serigne Ngagne aussi ñëk njëkk nañu def benn série mais boobu yàlla deful woon mu génn ak euh, Omar Faye mais mujjul woon génn mooy manager Omar Pen. waaw. léegi est-ce que mën nga maa wax lan moo la motiver ba nga jouer théâtre ah ben parce que passion le mot c'est passion le mot c'est voilà mon tax me euh, contacter, ma ma def avec un grand plaisir. Nous, gis na ci mbettel aussi yaa ngi ciy rôle boo xam ne doy na te gis nañ ne maîtriser nga ko réussir nga est-ce que c'était pas difficile de jouer rôle koo xam ne xelam dafa dem est-ce que au début yomboon na ah vraiment au début moom c'était hyper difficile moom franchement bu dee dëgg rek a neex yàlla xalaatuma woon ni que sax dina ko réussir mais bon nit ki si lepp euh, loy dugg rek dang ci démé ak gëm-gëm lolou moo si génné début bi mako waxé ko waxee mais xam nga mbetteel ñi ñu entouré ñëpp ay ndaanaan lañ vraiment biko dalé ay Serigne Ngagne ay Ndeye suñu ñaari scénariste suñu réalisateur ñëpp si japp cadreur bi monteur bi ñëpp si japp vraiment boo xasee moom ba ba tourner après tu vas t'en sortir. en tout cas <laughs> pas du tout facile. non vraiment c'était pas du tout facile mais équipe bi yëpp équipe bi nañ série bi ngay joué euh, à travers rôle bi ngay bu conseil parents yi nga dañuy dem abandonné ko ba ëllëg ci biir seen doom yi mën a daje euh, ñu dem ba bëggante tey ji boo amoon conseil boo leen di lancer yow ci en tant que Mamita li la dal ci série bi ban conseil lay doon. ah xanaa rek euh, ñu bàyyi loolu parce que ku seetaan euh, mbetteel gis ni ma dundee ak Omar ak après conséquences yi mu am vraiment c'est vraiment à à éviter ak melokaan boo munti amee doom moom doom alalu yàlla la jarul nga koy sàndi jël ko nga uuf ko.

ñu dem ba bu sëy jour bi ñu naree sëy ñu xam ne que ñoo bokk papa xam nga ni loolu dara gënu ko metti loolu moom man mënoon naa si xaru xam nga moom xaru bi mu xaru man tamit mënoon naa si xaru donc c'est vraiment à éviter moom te gis gis nañ ne cas en général peut-être dañ ko dañ mais c'est à travers série ngi dénoncer genre cas yu si parce que man déjà biñ ko biñ ko joué wee jot ay messages yu via messenger ay nit expliquer ni que dund ma choqué parce que man euh, man sama entourage vraiment musuma gis ko dund mais après ñi message ni que dund nañ ko affaire en fait. xam nga doo ko xalaat parce que boo ko dundul peut-être danga naan amul wala danga koy dégg ci nit yi mais nit ay nit di la message ne la vraiment ñoom dund nañ lii xam nga affaire bi danga koy mettitlu moo tax c'est vraiment à éviter parents yi nañu xoolaat bu baax li ñuy def. waaw yaakaar naa ne tey parent yëpp tey kuy seetaan émission bi déglu nga conseil yi Mamita te dinañ ci bàyyi xel bu baax ba tey Mamita bon séquence nga joué ci série Mbettel boo xam ne frappé na la marqué na la ba nga xam ne mënatoo ko fàtte. mooy bi ma tiimee Omar noonu. mu mu mu xaru mu mu kii en fait mu mu décédé wu loolu ça m'a marqué tamit ak bi ma bi ma nee damay yàq ëmb bi daf ma daf ma métti parce que xam naa ni que bu doon man Mamita en tant que man duma ko def donc euh, daf ma métti ma xalaat ñu koy dund et tout métti na ñu violé la xamoo kan moo la violé nga jëlee ci ëmb c'est vraiment dur. Euh, Mamita mën naa la laaj tey nan nga gisee milieu cinéma bi ak série yi nga xam ne gis nañ ni chaque jour ñu une série en tant que actrice série ah ben ñëpp ñu ngi bay seen waar ñëpp ñu donc euh, comme dem nañ ba ñu ngi évoluer ku euh, c'est une bonne chose ne ne le tout pour euh, réussir et c'est très bien et c'est très bien pour pourquoi pas pourquoi pas ñun mënuñu ko def. ñu c'est vrai c'est vrai que ne mën nañ war nañu mëna réussir comme. vraiment ku nekk yaa ngi siy bay savoir, et ma ngi leen di encourager ñoom ñëpp autant qu'ils sont. Mamita bu njëkk ak Mamita léegi ku nekk xam na ne am différence parce que Mamita qui passait inaperçu ak Mamita léegi am na euh, déjà sénégalais xamul xàmmewul personne ak personnage nooy dundee succès boobu. <laughs> ah man en tout cas man je suis de nature man j'ai la tête déjà euh, sur les épaules du coup vraiment dara changé wul si man c'est vrai que ça fait plaisir ngay dox xam nga nit yi di la ràññee ndeysaan di apprécier li ngay def ndeysaan di may wax ay waay li nga ma jooyloo ay dama laa yërëm affaire yooyu danga ma dama laa bëgg ça fait ça fait plaisir mais taxul tamit ma changé man nu ma meloon avant ak léegi euh, non la mel dara changé wul sama vie vraiment mais moom kontaan naa si moom da nga si da nga siy am mbégte parce que ngay def dara euh, génn si mbedd bi nit yi di la ràññee mu leen di neex ñu koy dund ndeysaan ba ba ñuy ñuy joy di la seetaan di joy di la ko wax c'est c'est ça te touche en fait loolu daf may toucher et que neex na ma torop tey mamita lan lay wax ay fansam ah xanaa kontaan si ñoom rek kontaan naa si ñoom ñépp ku si am aussi reproche boo may def nga nga wax ma ko ma mu mu tax ma day tax ma gën a góorgóorlu donc kontaan naa si ñoom ñépp maa ngi jot ay message vraiment appel yi ñépp daal kontaan naa si ñoom samay fans amita ñu gis ne jamono ji sujet d'actualité bi bu ñu continuer demee ci wàllu côté wujje ñii ngi taal seen jëkkër yi ñii ñi ngi gor seen wujj yi yow en tant que jigéen tey nga nekk citoyenne yow ban conseil ngay jox jigéen ñi def loolu xoola tey pas plus tard que sànq rek laa dugg Facebook gis euh, tamit kenn ku jigéen ñaar lañu sax kenn ki je pense que euh, wujjam da ko fekk ba Chine ak cousinam gor yaram bi yëpp dagg ko keneen ki Touba tamit aawa bi def pareil mais lan moo ko fi jar vraiment wujjee lan moo ko fi jar ben si tu peux pas supporter ñaanuñu ko yàlla mais nga dem sa yoon yàlla jeexul góor yi bari nañ fii dara jarul si àdduna góor si boppam moo ko njëkkul jar ngay jël sa moroomu jigéen di ko jam di ko góor ak yooyu c'est déplorant jaru ko dara jaru ko métti na ma moom métti na ma torop torop torop maa ngi koy nakarlu bu baax a baax te et que maa ngi leen di conseiller tamit ni que ak lu mu métti métti métti kuñ fi takkal wujju si tu peux pas supporter vraiment nga jël see bagage. <laughs> mami taa wujju wujju neexul de. <laughs> wa mais neexul mais tamit jarul nga ngay ngay. voilà yefu sadik yoyu noonu. daggate non mais bima gis tay suba dama choqué daggati sa yaramu mu jigen lan moko fi jar. tamit semaine ya deux semaines amna kenen ko xamne je sais pas Pikine la xawma ma veille bu jigéen bi nara a sëy si wujju bi mu gor ko gor yaram bi yëpp lan moko fi jar jaru ko vraiment après nga dem tëddi kasso doy na waar daal j'espère que gars yi dinañ déglu dégg sa message. jaru ko moom kuñ fi takkal wujju si tu peux pas supporter nga buub say bagage dem sa yoon mais dara jarul vraiment ay taal sa jëkkër ak yooyu noonu. yàq sa àdduna yàq sa àdduna vraiment lan ngay wax yàlla après. Mamita est-ce que mën nga ñu wax tey ci biir mbetteel euh, lan moo la ci gën a neex wala lan moo la ci gën a naqari. Euh, aw ma si nag lu ma lu ma naqari vraiment mais li ma si gën a neex mooy euh, séquence bi ma doon tourné noonu ak sama yaay. mu may jàpp di ma génnee pour am ñu ma jël si pour yóbbu ma dalal xel ndeysaan mu jàpp ma di ma génnee ma gestu ne ko ay maman yaa may def nii yaay setaan ñu ma yóbbu dalal xel rek mu sànni saagam dugg si biir ndeysaan jooy ba man sax daf ma jooyloo ñun ñëpp ñoom leen ñoom ñëpp doon jooy ñun ñëpp en fait affaire bi daf ma touché parce que man ak moom dañu dem ba si biir euh, cofeel dugg sama diggante ak moom mu mel ni moo ma jur man tam ma jël ko def ko comme sama yaay. moo tax soo remarqué suñu séquence yi man ak moom yëpp dafay naturel tu vois. vrai gis nañ ne complicité bi mi ngi foofu noonu moo tax euh, peut-être xanaa xëy na séquence yi di yomb ci yéen. waaw waaw parce que dañ dem ba si biir moom cofeel dugg sama diggante ak moom mu bëgg ma ndeysaan def ma comme doomam bi mu jur. day génn sax si dem nit yi nag di ko laaj ba xam moom moo ma jur et ak nu ñu niroowee man ak moom même sama yaay sama propre yaay bi ma jur sax daf ko jaaxal ndeysaan ba di may ne may naa la ndey siin affaire yooyu. tey jii bo amone koy remercier parce que ñi ngi ci suñu cappaandawu émission bo kan ngay remercier. euh ma ngi remercier sama jëkkër bi nga xamanteni moma permettre déjà may euh may jouer té amaluma benn jafe jafé mu ngi may soutenir mu ngi may comprendre maa ngi remercier tamit euh, équipe technique bi yépp parce que ñom ñëpp japp nañ ci di remercier tamit Serigne Ngagne Papa Diouf hein di remercier ce euh, ki nekk sama papa <laughs> si film Pape Fall ak sama maman d'amour Ndeye mom mom sama yaayu bop la sama yaayu xol la day japp ci sama ay séquences bu baax a ba suñu tourner man ak mom donc euh, di remercier ñëpp ay ñom ta ñu ñoo ñom tonton ñambe ñom ñëpp Bella Sène Tafat Dame ñëpp maa ngi leen di remercier bàyyiwuma kenn di remercier aussi sama papa sama yaay bi ma jur ñoom tamit euh, teguñu ma benn daal bien avant sama jëkkër avant may marié ñoom ñoo ma dem di di jouer et tout ma remercier famille sama goro sama remercier mbokk internet yi dafa mel ni nag egsi nañ ci suñu jàppandaw émission mais laataa ma tàggatoo ak yéen nag duma ma def lu dul remercier man tamit ah sama maman bopp kooku nga xam ne moom mooy Zeynab Tandian ñu naan ko Koka maman Koka xalifa jëlal sama robe fii de la génneeg man. mamita nee na nag na ñëw mu defal la ci yu baax yi. maman Coka sa yóbbante egg na kon di leen jox euh, rendez-vous très prochainement ci seen beneen numéro Zap Série ak seen beneen invité jaa ngeen jëf.